بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن شيخي وقدوتي ووصيلتي إلى ربي محمد ابن محمد ابن حبيب الله العبد القديم قاد الله ما اختار له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk يتدي سين yi علي mbokk جاي Badara Ndiaye ci bind xasida yim baaxoo ànd ak yéen dikkaat na ci kàttanul yàlla saa borom subhanahu wa taala ak ndimbalam di indi geneen qasida ci qasida yi sëriñ Tuubaa yi te moo di ak bushra lana ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla nanu dimbali nangul ñu jëf ji ci ak mbaaxam yàlla bum ci xool sunu doyadi ak sunu ñàkk solo ak sunuy bëri bàkkaar ak sunuy ayib yàlla na ko dugal ci liggéey bi sëriñ tubaa di liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa sallama di dogal ngant ci waram xam-xam yépp ci bépp njuumte bu ci nekk di ko jéggalu doomi soxna yépp di wax rek ne jubluwaayu leeral xaside yi ci wolof du jubluwaayu nettali ne lii la sëriñ bi jublu li ju sëriñ bi jublu moom xamunu ko waaye mooy jubluwaayu rek liggéeyal sëriñ Tuubaa ngir képp koo xam ne déglu nga xasida gi niñ ko leerale ci wolof boo koy jàngaat gën cee amuk cofeel waaye bind yu am solo yi ci Sëñ Tuubaa di jàngaleet nga mën cee jariñu yal ko yàlla mottali ñu di tàmbali tey jii di juróom fan ci weeru koor wi 2018 fi ci Touba Darul Minan gi nag dafa mel ne amul tarjumaan te loolu bari na ci xasiiday sëriñ bi boo seetee lu mel ne jësbul xulub ak lu mel ne ñoom taysirul asir ñooñu amuñu tarjumaan ji feeñut xasida gi fii la tàmbalee audu billahi min alcheytaani rajim mu ne audu dinaa muslu man sëriñ Tuubaa billaahi ci yalla mi sa borom mina shaytaani ci ar-rajim kadi kuñu dak ci yermane yalla saytaane dafa am doole lol ci coobare yalla yalla may ko kartan ba kep ku mu songu te yalla dimbele wula mu danel la motax mo moo yonent bi ne ko jang al-qur'an fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim delul ci yalla nga ci mom ci mu bismillah ma ngi tambale ci turu yàlla ci sama tere bi may def arrahman yàlla mi borom yermane ju matale ji arrahim yàlla mi borom yermane jami jaglel jamam bu ko sop ëllëg yowmal khiyam bismillah waxoon na ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxna ne jëpp jëf ju ñu yaakaar barke boko ci ca jiitulut barke ba day naaw barke du ca nek mu ne bushra lana qad ataana aljuudu walkaramu lamma stahallat alayna al ashhuru lxurumu bushra lana am nanu mbég ñun jullit ñi am nanu mbég ndax xat ataana aljuudu walkaramu xat ataana ñëw ni ci ñun aljoodu tabuk yàlla wal karamu i teraanga yàlla kañ la ñëw mu ne la mastahallat bi mu feeñee rek bi mu ñëwé alayna ci sunu kaw ñun julit ñi al ashhuru wer ya al hurum ya day ñu li ñu al ashhurul hurum, muy ñent wer yoy nga xam suñu borom nee dama ko warmal lool fonk ko ba tax dama dama tere won sax julit ñi ñu ci xex ak yéefar yi ñeenti weer yooyee suñ bi mu ñëwé rek nee na dañoo ñeel ndax dañoo am ay xéewali yalla yu yaatu ak ay teranga yalla lan mooy al ashurul xurum alxuraan andi na ko nee na weer yépp fukki weer la ak yaar waaye nag minha arbaatun xurum am na ñeent yoo xam ne suñu boroom da ko fonk lool warmaal ko jox ko wàccuwaay bu rëy ba wax ne fala tazlimu fihinna anfusakum bu leen ci tooñ seen bopp bu leen def lu leen bàkkaar di ware ndax jaamu yàlla boo ko defee ci weer wu tedd ni ko suñ borom di fule ak mooy yàlla boo ko defee ci weeru wu yàlla tere lit noonu lay mel wala iyaasu billaahi ñeenti weer yooyu mooy li ñu tuddee dul qinda ak dul xijja ak muharram ak rajab bu doon ci olof nga ne diggi ak tabaski ak rajab ak maanaam li ñuy tuddee weeru baraxlu maanaam weeru tamxarit weeru tamxarit ñeent yooyu mooy al ashhurul xurum yàlla da ko war maal sëñ Tuubaa ne ñeenti weer de ñëw nañu te buñ ñëwee indaale ay xéewal yu yaatu te bu ay xéewal ñëwee jullit ñëpp mbég ñeel na leen mu ne husna mi ngi wax xéewal yi husna làq nanu mataaban tuub gu nu nangu maal xufraani ànd ak njéggalu yàlla fii rajabin ci weeru rajab wa narta ji te dananu yaakaar fil bawaaxi ci ñetti weer ya des raw daman tàggat ña nga xam ne xurimu xañees na leen yërmane yàlla mu ne weeru rajab nga ne bokk na ci ñeenti weer yooyu suñu borom defal nañ ci tuub gu nu nangu defal nañu ci ak njëggal noonu mënu ko defalee nag ñi ngi yaakaar ci ñett ya ca des te mooy weeru tamxarit ak diggi ak tabaski ñi ngi yaakaar suñu borom tàggatal ñu ci seytaane ak képp koo xam ne ab yàqkat la suñu borom da koo dàq ci yërmane yàlla narju danano yakar min wahid ci yalla mi kenn ko amul ñaareel alqahaar kadim kon qaliqina ta moy kanu bind ñi nga yakar ci moom al hita ida notug non ya al ida notug non ya waxata mom yalla kat jabbarun ab kon la wa mun daqimu ta ku manam bugal ay nonam la nee ñi nga yakar ci yalla suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne kenn la mi nga xam ne alqahar mi nga xam ne muntaqim mi nga xam ne jabbaar la tur yooyu foo ko déggee ñu koy jëfandikoo rek mooy ci ay noonu yàlla la jëm yooyu bu ko maanaam buñ doon buñ ko doon misaal dañ mbubb yooyu bu ko suñ borom sol solee rek xamal ne jullit koo jóg ma nga jëm ca noonu yu bon ya xasida gi nañ ko bàyyi xel xasida ak tawxiid la xasida ak wéetal yàlla suñ borom subhanahu wa taala la moo tax loolu suñ borom dana ko ci leral bu baakha baakha baax te bu ci kanamé dana gëna kon indi na al wahid yalla kenn la kenn du bokale yalla kenn du jël dara yalla di jox kenn yalla qahhar la dafa dafa not ba nga xamné loko neex mu def ta kenn mënu ci dara yalla ku alak ay nonam la waye yalla loko neex mu def ci dolem neena ñi nga yaakar ci yalla mom nak mu notal ñu sunuy non wo mom yalla kat man nako ndax al mughiizu mooy aji xettali ji allasi ji nga xam ne arjo man sëñ Tuubaa danaa yaakaar ighazatahu ak xettaleem walastu antaximu den may mbugal li naf si ñel bakkan ba fit daa daaray ne ci ci ñaari kër ya muy àdduna ak alaaxira nee yàlla suñu boroom moom rekk moo mën a xettali dégg nga doomu aadama moo tax man sëñ Tuubaa du ma yaakaar mukk ndimbal wala xetal ji kenn dul yàlla ndax su ma notee sama bakkan ba manal ko dara daa fekk ne sa borom subhanahu wa taala moo ci moo ci dimbali wala su arju wala su axsha wala su arju wala axsha siwa maliki wala su axsha wala arju siwa maliki li annahu jalla yughnini wa yunjini loolu jàng nañ ko tabarkàlla kon suñu borom moomu mooy almuris gis nga indiwaat na beneen turu yàlla moom rek moo mën a moo tax xetal ci yàlla rek saa borom laa koy yaakaare ndax bu dul toona moom du ma manal sama bopp dara mbokk te di lii mooy euh, sunu bind bu njëkk ci Bichra Lana numéro 1 bi yàlla na nu yàlla defal dégg ak topp ba beneen yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullah